Paul. Sana, sana, sana, C'est bon. C'est bon. C'est bon. des na Thank you. c'est bon. Si vous êtes prêts, on démarre. Assalamu alaikum. suñu mbokk journaliste yi maa ngi leen di gërëm bi ngeen ñëwee tey ak doole macha allah wane ngeen ni jox ngeen importance leaderu PTP le député du peuple le futur président du peuple inchallah tey bis bu màgg la bis bu rëy la ñun ndax nag <laughs> Sénégal de cee bokk ki ñu gis ku ne ñu naan war a nekk président Sénégal ndax am nañ ay milliards ñi sàcc nañ ay milliards ñii doomu président lañu ñii ay terroriste lañu ñii dañu ne ragal ndax dañu dóore di xaste di nappaate di taal ñu ragal leen war nañ nekk président bu dul loolu lu ñu wane Sénégal dara ñii may doomu président rek dara ñii gis nañ ay milliardaires ñu ne war nañ nekk président ëllëg waaw loolu moo yore réew jikko ju rafet moo koy yor réew jaar-jaar boo wonee da nga xeexal sa réew moo koy yor réew ku bëgg réewam ba jal ko bakkanam moo koy yor waaye du jël ay réseaux sociaux ay télévision ay rajo inondé ko corrompre ñenn ñi ñu tëgg naa yaa war a nekk président yow loo def pour mériter nekk président moo tax ma jox parole sunu jigéen Adja Ourey Fall mi mi nga xam ni keroog mu ngi ci réunion bi samedi bi ñuy wax ni président El Hadji Diouf moo fi mën sunu parti même bu fekkee ne xamee wuñ ko doole jooju Macky Sall bi muy nekk président ko xamee woon doole jooju APR tontu leen ma waay Sénégal Macky Sall biñ ko dàqee assemblée nationale mu fekk fa ay ponk lu ñuy wax Moustapha Niass Tanor Dieng Idrissa mu am parti bi soog a juddu mais wër xeex ñëw jël réew mi ndax dafa am valeur Macky Sall moo na bi affaire bi bu doon loolu kon Tanor Dieng mooy nekk président tey dem si yàlla si wala Moustapha wala Idrissa Seck ndax ñoo ko fi njëkkoon yore parti doon parti socialiste bi ñu yóbbu indépendance ak Senghor Moustapha Niass bokkoon ci directeur cabinet de Senghor Idrissa Seck nekkoon fii ancien premier ministre dem élection topp ci Abdoulaye Wade en 2007 nekk chef de l'opposition nekkaat ko encore deux mille dix-neuf waaye Sénégal léegi naa fekk ko lal même boo jëlee deuxième temps yi di nekk deuxième yëpp kenn du ne mooy chef de l'opposition nekk na ko ba fekki Macky Sall kenn du taxaw ni Idrissa Seck mooy chef de l'opposition naka mu dem rek ñu wut benn waay ne mooy chef de l'opposition te pourtant dina ko dem ay weeri weeri weeri weer avant muy fekki Macky Sall waaye nañ bàyyi naa fekk waaye Sénégal waaye nañ bàyyi par parloo bi ak yëfu yëfu ñàkk fayda yooyu dañ ko bàyyi nañu bàyyi di jël benn tuut di ko wutal nam ni nag la am ne baba foo di mbëkkaate te du di ko xaalal yoon boo xam ne du yoonam kon bala ñu ci développement li tax ñu le PDP a le meilleur candidat urée dana ci duggu après Adja Sofi Thiam wax ci après seen serviteur tojal leen yax bi war leen pourquoi il a le meilleur profil il a le meilleur parcours mais et puis di slogan bi ñu def je serai le candidat incha allah rabi je reviens de la Mecque comme ça et dama ñaan yàlla bu jox réew mi ci kaw réew mi du kenn tiitati c'est le slogan de la sécurité le candidat de la sécurité et du progrès fas yéetuma nekk président dama bëgg nekkee président ku tëdd nelaw doo xalaat sa kër ku am magasin nelaw doo xalaat ñu taal sa magasin sàcc say ceeb daw ak moom loolu c'est fini ngeen ma am naa fitam am naa fullaam am naa faydam je suis l'homme de la situation ku fi nekk di rappi lappi ma rëq sa ndig xam ngeen ma te dara bu du ma mën xooxatal sur ce plan là le meilleur ku fi nekk di tappet di yox yoxi ñu di la napp ngay raam di en arrière di baa ñuy taal ak man kenn du taal dara ku taal ñu taal la ku jéem a taal doo taal bala ngay jéem a taal ñu taal la daa ci ñëw université yooyu ñu taal daa ci ñëw di fi amati incha avec El Hadj Diouf président de la république Où est-ce que vous avez la parole Non, non, mën na ma mën na allez. Auzu billahi mina sheytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahi rahmani rahim. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. sama mbokk yi yéen ñi fi daje ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi El Hadji Moustapha Diouf di ko ziyaar di ko màggal macha allah ndax ku ne xam na ne alaaji la fi mu toog dafa ñeent fukki guddi yi di mot Diouf ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu wér di la ziyaar di la ñaanal ci sa barke turandoo ndaje mi ñu toog fii tey nag woote ko di nuyu sama mbokk yi toog yëpp macha allah yéen ñi fi toog ñëpp ku nekk borom xel nga journaliste liggéey waaye ku ne xel nga am réew mi ñu bokk ko ngeen am ay bët di gis am ay nopp di dégg macha muy lan ki nga xamante ne tey mooy maître El Hadji Sénégal dafa am ñaar lu leen ump El Hadji Diouf dafa am maître El Hadji am boo nee maître El Hadji loolu mbubb ma muy sol moo ko waral moo waral xuloo bi moo waral di défendre nit ñi moo waral defante ga waaye boo dindee maître ba mu summi mbubb mi bu ngeen bëggee xam kan mooy El Hadji Moustapha foofu day sol mbubb sénégalais bi nga xamante ne mooy chef de parti mooy chef de famille mooy l'homme du juin ku koy juge nag foofu nga koy juge mais képp ku ko bëgg juge ca baar ba mbaa nga juge ko ca robb ba xamuloo ko parce que mu ngi mel ni tey rek maanaam promoteur bu tëgg si signature de contrat nu muy demee coow la day metti loolu show la kon bu solee robb bi rek maître la waaye fii mu toog tooguñu ak maître El Hadj Diouf El Hadj Moustapha Diouf la ñu toogal te nag réew mi comme ni mu ko waxee ñett a koy gouverner te ñett ñi koy gouverner yëpp macha allah jiw fa ñoo ko yàlla jox na ko wax na ko xel mu sell ci la waaye loxo yu set tamit ci la taqul fen tilimul fen dafa weex tàll ba mel ni perkal bu ñuy yóbboo néew ca armeel ya ci kaw lan maître El Hadji Diouf na fi ministre ci ab Ablaye Wade yéen lay laaj yéen journaliste yi ak sénégalais yi kan moo ma fa dégg ñu ne la mu lekk la mu luubal audit ba amul xam ngeen ko xam naa ko ndax bu amoon ñu yëg ko ndax média yaa ngi fi kon gàcce ngàllaama benn ñaar maître El Hadji Diouf nekk na fi député assemblée nationale ñun sénégalais yi ñoo ko faloon teg ko fa mu solal ñu mbubbu député keroog ba mu génnee assemblée nationale la mel ni champ de bataille lañ ko fa tege woon mu mottale ko ba ni mu fa génne ku mës a dégg ñu ne lam fa def mbaa lam fa wax loxoom ya set wecc ju fa ñoo ko bàyyi dara réew nag ku ko bëgg a Sénégal léegi li ko yàq mooy diw de baayam am na xaalis waaye mbokkal doom ja nañ ko fan la ngay def xamoo ca tous maîtriser woo ko sa papa am xaalis ñu yan la ko mbaa nga yor xaalis ñu jox la ko réew ku koy yor danga koy maîtriser muy ñetti pouvoir législatif kenn di ko ko jàngal exécutif doon na ministre judiciaire nee naa leen bu gagee ci justice barke Khalifa Babacar Sy monde entier mbindeef mënu ko gàggar kon gàcce ngàllaama suñuy dénk nit réew ku mel noonu la ñuy ut li mu am moo ko ñàq sàcc ko tiriyandu ko wuruju ko fen ko teg ci nag di un homme boo xamante ne développement ak social rek ci lay dox man lépp